Ali Bathily maa ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay fay awa. alors ngay euh, directeur généralu SODAV gis nañ nag ne jamono ji ak campagne électorale bi candidat yu bëri euh, dañuy rek utiliser euh, wuyu ñenn ci artiste yi ngir rek nit ñi mën a ñëw bokk ci seen campagne boobile waaye bu fekkee ni amuñu autorisation artiste bi ban conséquence la mën a jur. waaw ma lay ma lay jaajëfal awa ci ci laajte bi balaa may wuyu sax tontu ci sa laaj bi directement dama bëgg. Euh, déjà man damay rafetlu candidat yi di jëriñoo œuvre yi waaye nag ci biir loolu comme nu nga ko waxee ñu ngi salfaañe ay àq ak ay yelleef ñu ngi salfaañe ay àq ak yelleef ci ñaari fànn parce que nit ñi lu ñuy gën a gis mooy que ne ne candidat bi mi ngi jëriñoo œuvre nit di ko wasaare te fayul droit d'auteur kooku benn àq la mais am na beneen boo xam man artistes yi bëri ñëw na ñaxtu ko ne am na candidat yu jëlaat seen woy wala yu fay nit ku jëlaat seen woy mu woyaat ko noo xam ne ne est-ce que ñoom laaj nañ leen ndax woy boobu neex na leen est-ce que lu candidat woote neex na leen lool tamit beneen ak ak yelleef bu naan droit moral boo xam ñoom am nañ ko bu bokkul ak nag ak ak yelleef bii nga xam ci koom la wéeru mooy droit patrimonial bi te tàgguñ leen donc dans tous les ak nu mu ci munte demee rek loolu yoon daf kaa daan yoon dafa daan lool mun nañ ci amande nit ki mm-hmm. soo toppee sax yoon day dem ba ci biir ba ne nit ku koy salfaañe lu bari yoon sax tëdd sax mun na cee am donc loolu mooy sanction bi ndaxte te moom euh, droit d'auteur ab ab loi la rek bu nekk Sénégal loi moom ku ko jalgati moom daanoy tegu sa kaw moom loolu moom alaa kulli al noonu la deme mhm. waaw lan ci nekk droit d'auteur u artiste bi. waaw droit d'auteur u artist bi mooy lu nga xam ne ne moom la ñuy fay sodaal ci wasare bu ñuy wasaare mu delloo ko. loolu bokkul ak candidat bu woo artiste ne ko fental ma ab woy mu fent mu fay ko loolu mu ko fay du droit d'auteur ab cachet la ko fay droit d'auteur bi du artiste bee koy fayee sodaab moo koy fay mooy pour wasaare te loolu nag nu mu waroon demee candidat bee waroon ñëw sodaab ne leen man de damay campagne te damay wasare ay woy way bii nii may way donte fay naa nit ki mu defal mak fay naa ko cachet mais droit d'auteur bi yéen la ko war a fay léegi nag sama campagne de fii ak fii ak fii laa bëgg a dem parce que lu tax loolu candidat bu def ñetti région ak candidat bu def fukki région ak candidat bu nga xam campagne moom région de Dakar la ko yemane xam nga ñooñ du bokk lu ñuy fay ndax bokkuñ itinéraire damay joxe rek misaal rek ci ci ci nan la ñu war a mun a calculer mbir mi mais lépp lépp rek lu ci am solo mooy candidat bi moo waroon doxal tànkam ñëw Sodav pour ne damay déclarer parce que damay jëriñoo lii pour fay parce que nag ñoom ñëpp nag koo ci jël nag li nga la naan dëkk bi nit ñi duñu respecté yoon dañuy jalgati yoon yi dañuy jalgati luwaay xëy na tey nañ ko xëy na ñu ko waaye daal lu ma gis mooy que ne ne ñoom ñëpp ci seen njëlbeenu campagne ñoom ñëpp a jalgati yoon ndax kenn ñëw ci fay droit te ñoom ñëpp utiliser nañ ñi ngi ñi ngi jëriñoo œuvre artistes yi di def seen animation donc jalgati nañ yoon alors léegi nag dañ hmm. koy jalgati ñoo ko tey wala tey ñu ko xawma waaye daal jalgati nañ yoon loolu moom mooy lu am. alors bëri na nag ah. ay artistes ku ci mel ni Abdou Guité Seck ak ñeneen ñu ni mel euh, ñuy créer nag ay contenu jamono ji euh, jëm ci candidat yi nga xamante ne ñoo ngi amal seen campagne est-ce que loolee mën na jur yi tamit ay revenus. waa bien sûr bien sûr euh, Abdou Guité su créer contenu am dem ci candidat bi candidat bi bugg ko. ah soit mu da ko mun parce bam ba mu ko yóbbu daf ko yóbbu may ko ko wala daf ko yóbbu da koy jaay am na ci sañ-sañ bu mu ci munta doon mais moom fa sañ-sañam yem mais wasaare bi moom munul may kandida bi wala kii bi redevance loolu ci wàllu sodaaf la mais candidat bu ci am nag say contenu nga créel ko benn candidat soo demee mun nga waxaale ak moom ne ko créel naa la contenu léegi nag dama la koy jaay jaay bi nag bokkul ak jox ko droit d'auteur yi mhm. dama la koy bàyyi nga utiliser ko mooy mu fay ko du dëgg mm-hmm. am na ñu nga xam xëy na soppe lañ rek danañ la créer way fental la dem buñ la laaj dara mais ñàkk laaj dara boobu mooy lu ma wax laajuñ la kase mais droit d'auteur ñoom mënuñ la ko mbay maa ñu bàyyi la foofu prérogative boobu noonu sañ-sañ boobu Sodav la ko yoon jox kooku Sodav ba koy topp. alors lan la Sodav ba fas yéene def rek ngir mën a gunge tamit yenn artistes yi rawatina ndaw yi nga xamante ne ñoo ngi doog dugg ci milieu musique bi. waaw Sodav la di leen di xelal di leen di conseil di def ay formation di leen dajale suy organiser woo leen des fois ñu dem émission télé comme nu ñu koy defee nii maag yow wala rajo du dëgg des fois aussi ñun dañ leen ko yombalal kuñ ci wax contrat wala wax la ci dara wax la ci collaboration wala transaction ñëwal Sodav danañ la conseil gratuitement su dee contrat bu la jox ñu xoolal la ko su dee ñu la proposé ñu xelal la ci te doo fay dërëm ah xam nga loolu tamit vraiment ñi ngi def lu ñu mun ñun tamit léegi nag aussi nit ñi nag am na loo xam ñoom lay jaral wala du leen jaral ñu ñëw fii nii. alors nan ngeen di def rek ngir mën a gérer yenn artistes yi nga xamante ne du ñu créer contenu ba pare di laaj li nga xamante ne mooy droit d'auteur. waa xam nga lu may wax man déjà dama naan ku créé wul contenu moom munoo sax laaj droit d'auteur mun nga créer contenu tamit te doo am droit d'auteur ndax sa contenu su dee jëriñoo wuñ ko mais doo am mi ngi mel ne tamit artiste yoo xam xewoon nañ yaa vingt ans jékki-jékki yow vingt ans ba nga xewee xewi nga tur bi dama koy wax parce que aar moo demee noonu xew a xewi la ba nga koy def vingt ans xewoon nga lool dañ la doon déglu mais léegi xewi nga booyu bees yi sax xamatuñ yaay kan nga bugg yow chaque jour yow million ya nga doon am vingt ans ba léegi sax yu ñëw nga kon ne di ko am fekk kenn déglootu la nit ñi sax xamatuñ la wala suñ la déggee tey ci benn rajo da nga toog cinq ans balaa ñu lay déggaat loolu mënul nekk. Mhm. mënul nekk parce que ñun fay ñu maqaama nit ki ñun lu ñu jëriñoo loolu la ñuy fay c'est-à-dire moo wax ko ci tubaab on ne rémunère la notoriété de la personne. on rémunère la li jëm nag ci image wu artist bi tey jili bu demee ba nga xamante ne candidat gi mu doon gunge di ko defal ay wëy euh, bokkul wala sax euh, mujjuta euh, bokk ci ñi nga xamante ne ñoo am ndam ngir mën a jiite réew loolu lan lay mën a refléter ci moom. waaw bon pour man xam nga artiste bi moom c'est un rek. aar moom aar la rek ka nga parce que artiste bi aussi citoyen la am na droit am soppeem am na droit ànd ak kenn kooku gañe kooku ñàkk gañe je pense que nee na loolu du yàq dara ci valeur créative am du yàq dara ci valeur artistique am pour man munu ci am benn compétence faut pas aussi ni ñi di jaawale art ak politique parce que artiste bi moom mun na am benn koo xam ne ne soppeem la politique donc ku ci nekk aussi sooy dem ci coalition wala ci parti politique bi la nga am rek nga yóbbaale moom aaram la am aram lay yóbbaale. Mhm. keneen xam-xamam la am xam-xamam lay yóbbaale kële xaalisam la xaalisam lay yóbbaale. du dëgg mhm. ku nekk la nga am rek nga yóbbu rek ñoom ñëpp ñu dajale rek def ko seen seen seen fond de campagne du dëgg. waa léegi nag mhm. campagne gañe la ak ñàkk gañe intellectuel bu nga xam dafa nekkoon ci parti don doon réfléchir gagné wuñ ça ne veut pas dire beneen société du ko soxla pour jël ko wala beneen ONG du ko jël comme consultant wala expert pourquoi artiste parce que ku mu nekkaloon rek perte na rek alors moom tamit dal kenn dootu ko war a déglu kenn du ko kii déedéet déedéet ça n'a rien alors bëri na nag ay acteurs culturels ku ci mel ni euh, Ngoni Ndour nekk sax présidente du conseil d'administration wu SODAV euh, ñuy dénoncer euh, le fait que tey bëri na ay programmes yoo xamante ni daanaka candidats yi li ñuy lal boolewuñ ci wàllum aada cosaan lan mooy waral lu ni mel. waaw loolu de xaw bon waral bi dana ma jafe parce que man nekkuma place su candidat yi par contre jàngat nag jàngat lañ ci mun a def ñun jàngat buñ ci mun a def mooy. que ne candidat yi ñoom ñu ci bëri parce que benn candidat laa xam ne am na un programme culturel bu nga xam wax dëgg yàlla dangay xam programme bi saytu na ko génne na diagnostic def na ay proposition loo xam daal nit mun na ko jàpp xaw yenn maanaam mais sinon ñeneen ñi presque duñ ci wax dañ ciy jaar am na ñoo xam sax far duñ ci tudd duñ ko sax tudd daca sax bokkul sax ci seen yi am na candidat programme culturel bokkul sax amuñ sax vision culturelle bokkul sax seen programme am na ñu nga xam nag ñoom vision culturelle lu ne lañ ciy joxe barke yàlla lu ne lañ ciy joxe ay service militaire ak ay kii ak man finalement duma xam sax lan la mais dans tous les cas gis nga programme culturel pour man da ngay da nga soo koy def comme noo koy defee yeneen secteur yi sooy wax ci napp ji nga dem jege nappkat yi ngay dem ci mbéy mi jege béykat yi sooy def culture da ngay dem nga jege acteur culturel ñooñ ngay njëkk a commencé waxtaan ak ñoom xam seen mbébét parce que nag nuñ lay mbébétee aussi lañ lay waxaale tamit di la jox ay piste de solution après ñooñu jëlal des experts ñu toog di ci liggéey parce que nit ki mun na am mbébétam am ci xalaat mais du ko mun a structurer am ñoo xam dañ leen di aider ñu mun ko concevoir conceptualiser ko mun a dem lool di benn ñaareel ba il faut ñu xam ne culture dafa doon lu transversal ndax culture tay artiste bi mi ngi fi mais fa muy jaay ci numérique bi la nekk donc expert boobu nekk ministère de la culture mais pourquoi candidat bi du jël ci expert ministère de la culture yi laaj leen parce que ñoom c'est des fonctionnaires c'est des citoyens libres d'aller où ils veulent mun nañ jël kenn laaj ko ne ko ah yow de suñu bëggoon kii politique culturelle fan la ñu wala laal expert ministère de la culture boobu dana leen wax xalaatam mais expert ministère de la culture bi aussi nu mu koy waxee peut-être expert bu nekk ministère de l'économie numérique na ko xalaatam entrepreneur culturel yi ñu mel ne ñoom nga ne Ndour yooyu noonu nga wax mun nañ ci wax seen xalaat parce que ñoom c'est des privés yuy jël seen alal ak seen temps di ko def aussi ci culture pour wasaare ko ñoom it xam nañ fuy métti te ñoom yemuñ ci xam fuy métti mais ñoom am nañ gis-gis ci nu ñu mun a war a régler seen problème donc transversalité boobu nag ñoo ñëpp ngay jël boole leen ñu liggéey ci programme boo xam ne ne ñoom acteurs culturels yi ak yow mii nag yore sa vision politique ngeen liggéey ci programme boo xam day doon une offre culturelle boo xam ne ne dafay taxaw boo xam da ko mun a jaay sénégalais yi. très bien alors parce euh, lu may wax. bu fonctionnaire ministère de la culture bi yaakaar moom rek a ci war a réfléchir acteur culturel bi yaakaar ne moom rek ci war a réfléchir xëy na sax benn juriste war na cee mun a réfléchir benn euh, koo xam ne ne ci technologie la nekk mun a réfléchir ak yeneen ak yeneen. Mm-hmm. alors c'est un secteur transversal qui demande un regard croisé. lan ñi nga xamante ne ñoo yëngatu ci wàllum aada ci seen soxla réellement ngir mën a dund ci seen aar. waa man de soxla yi bari nañ. soxla yi bari nañ mais bu ma ciy njëkk a wax mooy benn bu nga xam moom leer na ma rek parce que dafa laal secteur bu may liggéey mooy propriété intellectuelle <coughs> mooy ñu am un secteur régulé et réglementé <coughs> mooy lan Sénégal bëri na ay lois yu ñuy jël ci culture jël nañ fi temps yi ni benn sur le statut de l'artiste yooyu yëpp baax na franchement c'est bien parce que aussi dañoo soxla loolu mais am na fi benn loi deux mille bu yàgg boo xam amoon na disposition bu mel ne copie privée amul koom-koom bu ko gën a ëpp solo pour artistes yi jamono ji ñu nekk mais malheureusement gis naa ne ne année yi ñu génn surtout atum ren bi soo ko compté ñaata texte la ñu jël conseil des ministres ñaata texte la ñu jël feneen foo xam ne ne ay texte yoo xam waxuma ne amuñ njëriñ waaye ëppuñ njëriñ ëppuñ solo texte bu waroon rendre effective copie privée au Sénégal parce que texte boobu ku ko jël copie privée c'est-à-dire wàññi nga ndóolu artistes yi ba abadan daay man ñii fi ne digge nañ ko bañ koy digge nag damay wax sam akulaay taalaa ñam àndal bañ ko déggee loolu laa leen njëkk wax ne leen man de gowuma ko dafa mel ne rek lu ñu daxañ rek ci benn discours rek mu jàll. Mm-hmm. et je crois que histoire jox na ma raison léegi lu ci des encore dama naan ña fi ne ñi ngi dem defuñu ko parce que wuré bi dem na kë nga ba pare. ñaareel ba nag mooy kii di ñëw su dee bugg na vision culturelle commencé nu baax ci culture pour man acte bu muy war a njëkk a jël parce que nag mooy copie privée parce que nag lu ñuy wax coolu coolu yëpp nag gis nga nit ñi soo buggee économie culture industrie culturelle et créative mooy secteur culturel boo xam day dundal acteur culturel yi kooku su ko jëloon c'est-à-dire ce sera le premier acte concret boo xam ne dana ko teg te dana ko attirer une un capitale capital de sympathie de la part des acteurs culturels boo xam du ko sax mun a mesurer. Mhm. c'est une très belle entrée en matière pour lui. en matière de politique culturelle. en tout cas Ali Bathily euh, jërëjëf may fàttali rek ne yow yaay directeur général u SODAV ñu lay jaajëfal bu baax a baax. voilà maa ngi leen di jaajëfal. voilà maa ngi leen di jaajëfal. voilà.